wax dana yóbbu nit safara wax dana yóbbu nit kaso ba wax dana yàq ñaari diggante wax dana sabab noone koo xam ne day wéy ba saa taxaw wax dana juumloo nit yóbbu nit ci erreur bu gën a rëy te yaa ko yaa lor nit kër wax bu nit ki waxul pour yàlla waxul lislaam